asalaamaaleykum waa Capa TV ñooy nuyu ñëpp ñu ñuy seetaan tey nag ñu ñëwoon suñu deuxième émission xew-xew tey nag dañoo ñëwoon pour waxtaanee insécurité bi am ci Hann bel mais bala ñoo gën a mën a dugg ci loolu dañuy bàyyi Tata ak Yaama ñu présenté woo ba pare. day xaar na question yi après ñu ñu posé ñu ci xamul tontu ko ci. salaamaaleykum maa ngi nuyu maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp maa ngi tudd Yacine ñëw ci émission xew-xew suñu insécurité bi nga xamante ne moo am Andola. waa Tata Marème Tata Marème question bi ma la bëggoon laaj nag mooy nga wax ma nan nga gisee insécurité bi am en Bel Air maanaam ñàkk kaaraange bi agression yi xalé yi ñuy gis ñuy utiliser drogue yi wala ñuy naan ay sangar affaire yooyu salaamaaleykum Adja def joxe nga question bu baax wax dëgg yàlla ndax fii nag ci Hann Bel-Air rawatina fii ci Hann 3 insécurité bëri na fi torop torop torop te loo xam ne fi am ndax insécurité bi moom dama ko daan wax heure boo wàccaan dugg oto dama daan wax ne heure boo wàccee yaraax man nga fee daawu waaye léegi agression yu bëri lool ba am na heure yoo xam ne boo fi génnee sax ñu agressé am na yoon sa doom ñu agressé saa nga xale yi tamit daw nañ dugg ci drogue bi torop torop torop ndax suñu doom yi léegi daawoo gis benn koo xam ne nii ku juddoo Altura yaroo fi màggee fi di def naka suñu yoon léegi nag suñu doom yi ñoo jiite ñoo nekk ci biir ndax ñeneen ñi fi ñëw ñëpp di agressé suñu doom la ñuy àndal di agressé ñoo nekk ci naanum sàngara ñoo nekk ci doxum yàmbaan ñoo nekk ci jaayu baraw bi bëri na fi loolu nag yaatu na fi te kuñ ci dimbali ñu jël ndax tey jii am na heure boo xam ne suñu marché bi boo ko fi génnee nga agressé la te loolu lépp li ko waral tamit mooy amuñu ay làmp ndax marché bi amul ay làmp làmp yi doon tàkk ci tali bi léegi làmp yi fu ñu sërmalee fajar fay nañ ko te ku nekk xam ne ne jamonoy seddaay la ñuy dugg temps bi dafay lëndëm te heure boobu mën ngaa génn ñu agressé lamp yi tamit bëgg nañ kuñ ci dimbali bu baax muy tàkk ba mu naaj waaye fu ñu ne asalaamaaleykum fajar lamp yi fay na te loolu lépp ci insécurité loolu ci loolu lépp ci la juddoo jërë ngeen jëf Yacine euh, yow tamit lan nga am yan point de vue nga am ci situation bi am en Bel Air insécurité bi bëri na torop sax parce que tey jii tu vois de nos jours xale yi à l'âge de 10 ans 11 ans 12 ans ñooy dugg waa ci ay naan sàngara gaz surtout agression xale yi nga xamante ni ñoo dëkk fii ci commune Hann bel boo xoolee ñoo jiite agression bi te boo xoolee auparavant loolu yëpp amu fi woon dangay gis exemple nit koo xamante ni day wàcc une di matin deux heures day dox normal mais léegi sañatu ko ndax lan dëkk bi ci boppam moo wóorutul agression yi bari na doo sax comprendre te aussi tamit suñ suñu mënee jàppale comme tànn Marème du ko waxee nii jàppale ñu bu baax ci wàllum électricité bi ak làmp yi surtout làmp yi di bu mënee di tàkk ba ay 7 heures 8 c'est bon mais à chaque fois boo xoolee bu julee fajar ba pare ci la làmp yi di fay te loolu c'est pas normal. Euh, maire bi aussi am na ci part de responsabilité parce que suñ nee 100. moom cinquante pour cent yi moo ko moom yeneen cinquante pour cent yi aussi ñeneen ñi am nañ ci wàll parce que bu fekkonte ne dafa amoon objectif je ne sais pas yàq na ko parce que gisuma fi dara lu fi def parce que boo xoolee exemple bari na cause yi bari na parce que exemple rek moom mënoon na jàpp jàppale ñu ci wàllum làmp yeeg yooyu noonu bu mënee aussi tamit di sensibiliser population bi. muy parents yi muy xale yi pour ñu mën a bàyyi seen agression yi wax wax ak ñoom yedd leen loolu yëpp dina baax waaw maire mairie bi tamit am na ci part de responsabilité bu baax a baax a baax. waaw tata Marème euh, yow est-ce que jàpp nga ni maire bi tamit am na ci part de responsabilité de responsabilité ci li am Hann waa am na ci waaye waa gox bi am nañ ci. waaye si naka. parents yi am nañ ci ndax si naka ndax tey agression bu bari ci marché bii laa amee te marché bii moom mais daf ñu diggoon ne ñu jënd na fi ñaari kër pour ñu def ko marché ñaari kër yooyu su dee jënd nañ ko nañ ko eggal def ko marché ndax mbaar yi kenn sañu fi jaar guddi te bu yëkkati woon bu tasaare woon marché bi rek loolu jeex fi ndax bu ko fi tasaaree ay buntu kër jàmbur a fi nekk te muntu kër fu leer kenn du fa agressé responsable bi mu fi am mooy war na fee def ay làmp ñaareel bi marché bi mu ñu diggoon na ko eggale def ko ñu jële fi mbaar yi ndax bu fi mbaar yi jógee rek fii agression man na fee wàññeeku waajur yi tamit am nañ ci responsabilité bu rëy rëy ndax doom it yàlla jox la ko rek pour nga jël ko rek sànni doom danga koy jàngal danga koy yar waslu ci àq mm. ndax dañ koy wax xëy daw rek jox dundal sa njaboot deug la neex na lol waye nañu yaraat doomi ndax di dundal di dundal ba mag dem ci benen côté tamit kon dundal bi amatu njariñ di yedd xalé di leen jangal di leen yar da ci am solo di leen xamal seen bop ñu ti seen bop xamal len seen bop dom boko juré da ngoy koy ti sa bop xamal ko ne carrément tay sa mag domam nga ne ko ki sa nawle la warul la dégg ci nangam warul la dégg ci nangam say nawle waruñu laa dégg ndax ni day am nawle Naku amun amul nawle la neex def len lu tamit parents mom la ci blamé ndax yor sa dom ba paré ne mënuloo loko dara loolu du yoon xalé bu am fukki at ak ñett nga ne mënuloo loko dara mu nekk geej di gens nga di sétan bo liggé muy drogué nga di sétan bo liggé liggéey lu mu def yaw la loolu mom parents kenn ëppalé wu leen ci rax ci dolli da ngay nekk ci kër ngay jigéen say chamagne nek fa nga yor sa dom mu commencé te bu ko laalé nga ne ko bal sama dom comme ni ma koy waxee dama naan doom yi papa yi sax léegi ay jàmbur lañ ci yaay ji sax su papa ji waxee mu ne baal sama doom kon léegi doom ji ku koy yar nijaay yaratul papa yaratul kenn yaratul ñu bàyyi doom yi ak yaay yi yaay yi mënatuñoo yar doom yi loolu tamit yaay yi am nañ ci responsabilité bu rëy ak waa dëkk bi tamit ndax tey ab dëkk lépp lu fay métti waa dëkk bi ñoo ko man a faj te tey agression bii ci dëkk bi. waa dëkk bi kese ñoo ko mën a faj maire du ñëw di leen ko fajal gendre gendarmerie du ñëw di leen ko fajal suñ takkoo taxaw nag ñoom gendre gendarmerie fekk si leen maire fekk si leen agression bii ci dëkk bi moom waa gox bi dong ñoo ko mën a dindi du keneen ndax tey maire mënul ñëw fii di taxawaal di xool ñi ñi agressé te fii ku fi agressé rek waa koñ bi xam nañ la ñi ñi àndal waa koñ bi xam nañ leen dañ fee woote woon fii benn réunion di wax ci affaire agression yi papa Demba Fall taxaw ak imam muy chef de quartier ba ak euh, imam bi ne xale yu góor yi takku leen taxaw jël seeni yat fekk leen fi ñu toog dóor leen ba ngeen di bëgg bëgg a dee képp ko leen ci gaañ responsable bi ñun la te ñoom it defuñu dara boobu ba tey ñu ngi fi bàyyi nit ñi ñuy agressé def leen neex soo waxee ñu ne ci koñ bi lañ dëkk ci koñ bi lañ dëkk léegi nag comme ñoo dëkk ci koñ bi da agressé ñu ci koñ bi te fajuñu ko maire du ko faj gendarmerie du ko faj nañ ko muñ rek boo ëllëgee lu ci am tamit xam ne ñun la tata Marème sa biir wax dama dégg nga ne conseil de quartier bi ak imam dañ si doon waxtaan ñu jëloon décision ne ñu yenn heure yi kuñ si jàpp ñoom dañuy fajal seen bopp te dañoo nekk si dëkk boo xam ne dëkk yoon la ñoom amuñu droit ñu fajal seen bopp ci loolu yow lan nga si xalaat ne maire bi war na si def. waa Ajara wax nga wax nga question bu am solo soo gisee ñu waxoon loolu mooy ndax dañ ne ndimbal la jafee ko loxol boroom. ndax tey dëgg la maire bi mooy maire yaraax gépp insécurité bu fi nekk war na cee taxaw waaye nag am na ci loo xam ne tamit waa gox bi mën nañ cee jël seeni matuwaay maanaam duñ fi rey kenn waaye tey ji am na ñoo xam ne tey ndax agression yi yow boo xefee boo leen reyul ñu rey la tey jii buñ leen fekkee fee mañ leen a dóor te duñ leen gaañ kuñ ci dóor tey dóor la suba ba léegi nga jóge fi boo ëllëgee dootoo toog fii di agressé ci noonu lañ ko waxee woon maanaam waxuñu pour ñu rey kenn waaye niñ ko waxee mooy comme xale góor yi xam nañ ñi agressé ak fi ñu koy agressé te gendarmerie ngi fii wax dëgg yàlla ramasse fii bu amee bala moo amati kenn xamatul kañ la te gendarmerie ngi fii nekk suñuy nopp mairie baa ngi fii insécurité bi moom mairie bi lim ci man mooy defal ñu ay làmp yëkkati marché bi defal ñu ay làmp yëkkati marché bii mbaar yi lay yëkkati fa yéene marché bi mu ñu wax mu taxaw ci defaral ñu marché bi ñu jox ko nit ñi nit ñi nekk fa fii ay buntu këru jàmbur la ñu dajji mbaar yi ndax mbaar yi bari na ci ñoo xam ne fii la ñuy fanaan te ñooñu ñu fi fanaan na ñooy agressé gars yi fii heure bu nekk agressé nañ fi nit julli nañ fajar bay sëlma sax ñooy agressé nit nit yónni na fi doomam fii gaz ñu nangu ko nangu portable bi am na heure yoo xam ne boo ko ne mee fii ñu agressé la ndimbal tamit da ciy fekk loxol borom am na ci loo xam ne tamit defal ma defal ma joo gis da ci jiital sa loxo am na ci loo xam ne tamit waa koñ bi ñoo ci mën a dox buñ ci doxee gendarmerie fekk si leen maire bi fekk leen si man day noonu laa ko jàppe waaw. ne pont bi nekk fii nii yokk na insécurité bi am Hann bel parce que auparavant pont bi amu fi woon donc gendarmerie gendarmerie dañ doon euh, nekk fii. fréquemment affaire yoy noonu mais maintenant pour nga gis gendarmerie sax ci cogne bi problème la. Euh, waaw mën naa wax ni tamit cause bi tamit di ci gëna bari tamit lool ci la bok euh pont bi parce que légui bo xolé euh pont bi chaque jour agression day am amul benn jour bo xamante agression amul ci côté pont bi euh, moto yeeg parce que des fois da ngay romb sax ñu keuf sa perruque. maa ñu ko sa téléphone wala ngay dox ni yàkkamti nit ñëw féetale ginnaaw da teg la paaka ne la loo ma jox te boo xoolee bu njëkk ba euh, gendarmerie danga naan nit sax dangay am xoole ak nit sax ne ko jarul sax nga naan ko gendarmerie danga naan ko nañ jéggi raay rek kooku day tiit mais bu tegoon benn paas après léegi day teggi mais léegi boo xoolee nit ñi boo nee gendarmerie sax ñu la demal fu la neex te bu njëkk ba nit ñi dañ ko ragaloon tellement parce pour les c'était tellement facile parce que da ngay ñëw rek jéggi dem mais des foo nga yéeg pont bi wàcc tourner te loolu tamit euh, commune bi de responsabilité surtout aussi tamit l'état nan nga maanaam état nan la si de responsabilité Oui, l'État euh, de responsabilité parce que j'espère que c'était en 2019 2019 je ne sais pas ba ñuy commencé di construire euh, pont bi commune bi ñëpp a taxawoon ni que loolu du fi amee parce que kenn ku nekk xam nga ni lii bu fi amee rek euh, ñaawteef yi dina dina commencé waaw te aussi tamit pont bi fi mu nekk noonu aussi tamit tere na aussi tamit képp ki nga xam ne dafay bëgg ñëw Yarakh du mën a nekk ndax auparavant da ngay gis nit koo xamante ne exemple day dem Pikine Euh, bu ko neexee parce que dina xamné dina am auto pour ñëw yaraax mais légui à partir de timis fu 18 h jotee 19 h pour nga ñëw yara sa problème la auto bu lay yóbbu HLM euh, Patte d'Oie euh, yenen zone yi sax c'est toutes les problèmes du monde te auparavant pour nga dem fa c'était trop facile lepp nak nak teer be ko ki be ko waral euh pont bi. waa Yacine su ma ñëwaatee ci li nga wax sànq. mën naa ne pour dire vrai moom pont bi le pont est mal fait. Euh, parce que booy xool pont bi moo indi problème yu bari comme problème circulation yi ak affaire yooyu noonu léegi man li si sama xalaat si loolu man dama jàppoon ne maire bi war na mën a gën a jege population bi. comme ça gën a bàyyi xel si population bi ñoom seen seen ay bëgg-bëgg parce que tamit population bi ñoo ko fi teg comme ça mu bàyyi si xel. affaire yoy noonu comme ça yarax tay ji dinañ ko gis fenen wala problème agression yoy yep yëpp tay ji dina fi meuna a wala bu fi jóge wu sax mu wañé ko bu baakha baakha baax comme ni nga ki waxé rek ndax dañu digone passerelle ndax passerelle bobu ñuy digone mo taxone ñu yëkëti fii moy kër portugais yi ak kër ñom mariseen ak kër gi ndon jaayé ki bobu fiñ don ñu doon mooy fii waa kii tant fi nekkone passerelle yooyu lañ ñu digoon ne dañ fi def passerelle boo xam ne day jóge Soseneb wàcc buntu gendarmerie te loolu lépp mujj ñu cee gis dara ndax ku fàttaliku jour bi ñuy baaree fii dañoo xëy rek teg fi miir tag defe naa xeex bu métti am na fi xale xeex fi xeex bu métti ba moo tax sax ñu defal ñu escalier yi ndax escalier yi sax amu fi woon fii pont bi fële la wàcce ji woon bañ na ko ba pont bi wàcce woon ci biir dëkk bi dafa dem ba génn dëkk bi wàcce ji ku doon dem yaraax dangay ngay jéggi dem ba foofu comme faama sànq ni mu ko waxee ndax gendarmerie da nga doon jéggi tali egg fa jéggi raay egg fa ku dëkk yaraax képp waa yaraax fi lañ doon demee marché ñun ay wale yëpp foofu lañ ko doon defee te tey pont bii moo tax loolu lépp amatul te passerelle boobu bu ñu ko defaloon tey agression dina fi wàññeeku bu baax baax ndax dañuy xam ne bu ñu yéegee ci passerelle bi jógee sa saneb dañuy wàcc fee te looloo taxoon yëkkati fi usine bi ba tuxal ko yëpp bu ko jam ñaajo te usine boobu Batayaan ñu ngi ko jëlaat defaat ko dépp te dépp boobu tey li gën a xatal fii yaraax aan si la bokk ndax dépp boobu chaque jour fi la camion yi di dugg camion yi rang la yaraax guddi sax circulation la bu guddee lay gën a xat te loolu lépp nag dépp bii fi nekk tamit am na ci responsabilité bu rëy comme ni ñu ko waxee te loolu lépp tamit liggéeyu mairie la ndax loolu lépp mënoon na cee taxaw. taxaw population bi bu baax a baax te loolu lépp amul. waatee si tata Marème li mu wax mooy si passerelle bi mën naa ne passerelle bi moom lu am importance la parce que sooy dox si passerelle bi sa xel dina dal parce que di nga xam ne gendarme yi ñu ngi lay bàyyi xel affaire yooyu noonu mais si loolu tamit dañoo war a waxtaanee si affaire transport bi parce que sooy xool Hann bel mooy deuxième commune après Dakar te naqari naa ñëw trop ndax transport bi. genre ci conteneur yi camion yi nekk ci kaw tali bi feesal ko loolu tamit nekk na phénomène boo xam ne tamit metti na torop ci sax booy xool ñi nga xam ne dañuy liggéey. ci loolu Yacine man dama bëggoon xam yow nan lañu mën a def. Euh, soxna Adjatou dégg naa baali nga ma ci question bi mais dañoo war a xam ne aussi tamit euh, Hann Bel-Air zone zone industrielle la d'abord. parce que usines yi ñoo fi ëpp boo xoolee tey jii nii li nga xam ne moo gën a waral euh, transport bi xaw a manqué genre un service des mines exemple da ngay xool à partir de sept mën naa wax sept six heures sept ba presque vingt deux heures nit ñi dañuy rang dañuy rang pour mën a ñëw service des mines. te bu ñu mënoon aussi tamit ñu déplacer ñu service des mines bi yóbbul ñu ko jam ñaajo dinañ dina baax torop parce que loolu gën naa tax yara am am problème de transport des fois da ngay génn pour nga am taxi sax c'est tous les problèmes du monde tey ji exemple rek boo demoon Colobane bi nga xam ne tout près boo leen ne woon yaraax laa jëm dañuy bañ parce que dañ naan yaraax embouteillage kese la boo jaaree fii ci fi nga xamante ni camion yi fa la ñuy jaar conteneur yi dañ naa la de un tali bi baaxul bu ñu jaaree pont bi nga xam ne moo wàccee EMG foofu tamit dañ naa la service des mines bi day xat ba presque vingt deux heures vingt trois heures loolu yëpp problème la aussi tamit. même maintenant sax pour nga am bus boo xamante ni da lay yóbbu Dakar c' est tous les problèmes du monde parce que je vois bien ni que benn ligne rek moo fiy daw mooy 41. koloban au moins moo ci tane parce que 65 beeg 54 bi dem koloban te bo xolé aussi tamit bu ñëk ba bus bu ñu 37 danaa jógee U4 dem ba côté ay wër dal mais légui pour nga gis leen tamit c'est tous les problèmes du monde bu ñëk ba da nga daan gis dem dikki 5 bus wala lu ko ëpp dañ daan ñëw yara mais légui ñëwatu ñu yëpp dañ leen éliminer mais lolu pourquoi pourquoi ñun mënuñoo jàppale pour transport bi te yaraax moo nekk euh, deuxième euh, commune après après Dakar mais dañ ñoo war a parce que Dakar yaraax tamit dafa jege trop ville bi mais ñun pour ñu dem ville ça problème la te ñun ñu te ñu jege ville trop trop ça. Le problème bi mairie bi la parce que population yi def nañ lu ñu mën mooy ñaxtu génn wax wax nañ l'union. ñun ñu génn ñaxtu ko ba ba ñu xam ne ñun ñii kat mer nañ mais rien n'a changé depuis lors comme Tane Marème ni mu ko waxee rek problème bu pont bi nii bu njëkk ba pour nga yéeg ci pont bi sax da ngay dem ba ci rond bi te ñëpp xam nañ ni foofu noonu léegi la rek mais côté boobu mosul am làmp léegi lañ commencé faa làmp mais bu njëkk ba fa ngay jaaree booy wàcc fa ngay wàccee bu du woon ak suñu xeex bi ñuy xeex nii. Euh, à l'aide de de de la population ñëpp génn jàppale ñu ci bu du woon loolu noonu est-ce que li yooyu yooyu duñ ko mës a am parce que noonu lañ sonne da ngay gis mag boo xamante ne exemple mu ngi am environ soixante quinze quatre vingt cinq di di yéeg foofu noonu tànk yi sax des fois du baax mag sa des fois da ngay wax mun la man pont bi day métti samay tànk franchement. Tata Marème transport Hann bel yow nan nga ko gisee. wa transport an beler Air met mete lo lool bi foko tak passé nako nak limay wax bo génnee ba ne yarax la jëm taxi bo arrêté bo nekkoo yarax sa dula tontu dalay romb dem yonam te loolu lepp nak liko waral moy conteneur yi ak camion yi ci kaw tali bi nak tay yarax am heure yarax sa ben voie la légui nak ben côté bi conteneur yi nga xamné ñoy joggé port ñenn ñi ci dépôt bi lañuy dugg ñenn ñi dépôt. magasin ba ci ci digg tali bi la camion yi di taxaw oto bu fay jaar da ngay teggi tey xool leen yaraax soog bu fi am rek soog bu méttee métti lay nekk ndax soog yi fi am yépp conteneur yi ñoo koy def tey ñun suñu tali karo bii tali karo bi ku nekk xam na ne conteneur waru fee waru fee jaar ak ay doodaan yi tali karo bi fi la conteneur yi di jaar te tey boo demee côté Marinas dañoo dem ba ci mairie mairie defal leen fa tableau boo xam ne. benn oto boo xam ne oto bu mag la du fa jaar ñun loolu tey conseil de quartier topp nañ cee topp topp ba xàddi mënuñu ko am te tey Marina seeni doom nekkuñu ci mbedd ñun la suñu doom yi nekk ci mbedd man damay xalaat sax léeg-léeg su ma gisee conteneur sax dama naan xale yi daw leen bam jàll ba pare ñu soog a jàll te loolu lépp insécurité la mooy comme ni ñu ko waxee woon waaw xam nga lu tax loolu ndax yaraax niñ koy waxee dëkk boo xam ne la dëkk cosaan la nit ñi teg nañ leen ci kon ay yar yoo xam ne yu bari duñ ko sañ te sa kilifa defu ko ndax tey ñun ñi am na lu ñu fi doon xeex fii nii tey biñ jógee man mii damaa am ñeneen ñi maa doon may leen na leen dem baare tal bi mooy suñ problème duusi na leen dem ndax yaraax boo woon fii rek Dakar fat dama leen dañ bàyyi ba àjjuma ba la ñoo julli na dem taal tali bi baare ko baare tali bi yaraax fat ñu xam ñun li ñuy jooy lan la waaye soo ko waxee sax njiit yi la ciy génne. ñun dañoo takk woon taxaw pour def loolu njiit yee ñu ci génne loolu nga wax dëgg la yàlla xeexuñu xuloowuñu moo taxit amuñu dara amuñu dara yaraax mooy commune bi gën a dellu ci wax sax nu ma ne Dakar ci Sénégal yaraax mooy commune bi ci gën a dellu te yaraax mooy deuxième commune boo xam ne kenn ëpp ko fi xaalis maire bii chaque année ay milliards lay dindi ko delloo ci keesu état te loolu xaj ci dëkk bi yaraax dangay xool tey marché poisson léegi la jóge ci yarax yarax fee la euh escoa ba marché poisson pompier ba marché poisson marché poisson sa ci yarax la bokon seeraas lo lepp ci yarax la bokon tay wa pig niñ def xeex xeex xeex ba jël marché poisson loolu waa yaraax defuñu ko moo tax waa yaraax tamit ñoo ki de ndax lepp lepp ci masla lañ ko tek ak wax wax nag dëgg la waaye wax dañoo toll jamono joo xam ne wax doxalatul dara xeex rek moo fi may ni dara te waaye laa xeexuñu ci dara tamit camion yooyu daal lu ñu sonal la ndax tey Sosenab bii biñ ko yëkkatee dañ koo yëkkati ba yóbbu ko jam ñaaju teewul dañ koo defaat dépôt ay ay kii di fi wàcc conteneur yi di fi wàcc conteneur yi demaat ba fi tey jii da ngay xëy bëgg a génn dem foo bëgg a dem doo dem. foo bëgg a dem doo dem léegi-léegi leen yaraax lu fa xew baa jàmm boo génnee ci dëkk bi boo génnee da nga naan lu xew yaraax baa jàmm taxi ba ëpp mooy la dew ma yaraax oto ba wax mooy la dew ma yaraax te loolu tamit mënuñu lu bari ndax ñun tamit dafa am foo xam ne suñu xeex fa yem fi nag suñu autorité ñoo war a mën a eggale suñuy xeex ca kanam waaye ñun suñu xeex fii la yem ndax dañ ne nit ku nekk tamit am nga fa nga mën a yem te fi ñu mën a yem moom ñu ngi ciy dox di ci wax am na ci loo xam ne nag autorité yi ñoo ko man te ñoo ñu ci war a mën a jàppale jërë ngeen jëf. si xataayu route nationale bi jàpp naa ne rôle état bi la parce que état bi moo am mission lu yàq si route nationale bi mu taxawu si mu defar ko mais temps yee passé maa ngi gis seen maire bi doon wax ak doon waxtaan ak ministre bi pour blocage bi am si route nationale bi. ah soxna Ajara loolu nga wax lu am solo la ndax route nationale bi moom ASROUTE moo ko géré. waaye bu dee route yi ci mbedd yi loolu mair yi moo ko géré kon loolu loolu nga wax dëgg la ndax fan yi suñu maire Moussa Babacar Mbengue mi ngi si wax ak ministre bi ci affaire ensemble pour ñu gën ñoo dimbali ci conteneur yi ak xataay yarax mi loolu moom rôle mair la loolu état la waaye rôle maire nag ndax tey jii ñun suñu mbedd yi tali yi si biir dëkk bi loolu rôle maire la ndax tey boo demee ba fii boo paasee tuuti nii rek usine glace bi foofu defe naa benn jardin d'enfants moo fa nekk jardin bi après continuer euh, kanaal bi moo fa nekk kanaal boobu bënn na pax moo xam ne rëy gi mu rëy oto bu ndaw sax xaj na ci biir te kam ka loolu yàgg na fa ba léegi dañoo jël ay xeer baare ko jël ay lii baare ko te guddi la te foofu tamit day lëndëm tey nit mën naa dox ma dugg ci te ku ci dugg maar day taal na ngay dee te budul dara jardin bi war naa tax état mairie bi taxaw ci loolu mairie bi tamit ñu ngi koy jooytuwaat di ko ko ñaan ndax conseil de quartier ñaan na ko ba tàyyi pour ñu defar ñu arrêté pour conteneur yi dugg suñu gox bi ñu génn fi ndax ay xale lañ yor xale yi dañuy daw génn tali bi kenn ku nekk xam na ne dañoo xaal dëkk bi jaarale ko ci biir kon ay ñaari kër yu jàkkaar jàkkaarloo ñam xale day dawee fii génn fii xale bu dawee fii génn fii maa day taal lu nekk mën naa xew ñu ngi ñaanaat dëru yeeg lépp fi la ñuy daw ñu ngi ñaanaat mairie mu defal ñu arrêté boobu ñun waa en trois nañu defal arrêté boobu waa defal ko waa commune bi yépp arrêté boobu ndax arrêté boobu waa Marinas am nañ ko comme waa Marinas ne niñ ko amee ñun tamit noonu lañ ko bëggee na ko defal waa yaraax ndax yaraax ku ne kenn ku ne xam ne dëkk jaboot la nañu defal arrêté boobu may ñu ko waa yaraax bu defee camion yi bañ fee jaar particulier yi di fi jaar ndax tali boobu su oto yëpp fi dañuy jaar rawatina conteneur yi jërëjëf Ajara si loolu euh, seetlu nañ ne yaraax nekkoon na plage bo xam c'était le plus fréquenté aussi nit ñi dañ fi daan ñëw tout le temps pour ñëw di jënd ci ay jën affaire yooyu légui vu nak problème transport bi bi ci am légui nit ñi légui léegi ñu fi ñëpp dañuy préférer yam marché poisson tata mare mala don laaj lolu lan nga ci lan mo ci sa xalaat ak sa gis-gis wa jara joxe question bu am solo lolu mom liko fi gëna andi moy dëkk bu xat bi tali bu xat bi ak pont bi nak tay yaraq fi ñepp fi lañ doon xey di fi ñew en trois gal yëpp fi lañ doon teer ku xëyaan fi nga daan ñew legi nak bala ngay ku melni ni yaraq yaraax yëpp ñu ñew fi ñu pass dem kasoor ndugi je te loolu lepp nak xataay bi moko waral ak pont bi tamit ndax ñu bari ñu ñew yaraq jënd ci jën tamit xataay yaraq dëkk bi ci la dëkk bi xanna ak ñak sécurité bi tamit ba tay ndax maire yi am heure yo xamne ne nangootuñ ko fi ñew di jënd jënd ndax wóoratul ndax fi yaraax ni daawul nelaw heure nek da nga naan dégg nit ñi di dox légui da ngay salatu ba paré nga soog dégg nit ñi di dox wala ñuy wax do lepp tamit xataay bi waral nako motax moo tax kenn mënatut a ñëw yaraax ndax boo ñëwee jënd si jën yaraax doo xam ba heure ngay jaay motax tax kenn ñëwatu fi pour jënd jënd lool ci la xataay tamit mën naa see yokk tamit manque d'hygiène bi parce que yar yaraax géej bi dafa xaw a salte daal mën nañ wax parce que ñu bëri suñu seetloo loolu duñ sa war a ñëw yaraax mooy loolu pour jàpp nga ni population bi am nañ si wàll parce que la plupart ñoom dañuy dem si géej bi di si sotti ay mbalit affaire yooyu noonu. waaw parce que man yooyu tamit samay bët ñoom ak may ma gis oto mbalit ñëw. Mm-hmm. sotti mbalitam si géej bi guddi bi ay 21 heures. mi ngi noonu daal te lu doy waar a ngi noonu. loolu nag loo loolu moom nga wax dëgg la ndax xëy na yaraax mbalit mi bari na géej gi tamit salte na waaye comme ni nga koy waxee damay dégg ñu ne yaraax géej gi dafa xóot tey bari na mbalit mu fi nekk moo xam ne jógewul yaraax sax mm-hmm. yenn yi tëngéej lay jóge ba poor lu ñu fa sotti rek tefesu yaraax lay teer si mbalit mu bari bari dëkku fi. ndax fan yee passé defe naa Mbacke Seck initié woon na fi benn sesetal boo xam ne keroog liñ fi génnee ci ay tonn mbalit loolu mu xajul yaraax ñun ñi tey jii comme dañoo yor benn GIE boo xam ne jigéen ñi dañuy bale ñun demoon nañ participer fa waaye defe naa ñun rek liñ fa am ci ay tonn mbalit sax kenn xamul nañ la toll te loolu tamit wax nga dëgg ndax géej gi tamit salte na ndax tey normalement waroon nañoo am ñoo xam ne heure bu ñu xëyee ñooy ñëw di bale géej gi mais jël leen ñuy xëy di bale géej gi amoon na ay temps waaye amatul géej gi kenn baleetu ko géej gi tilim na salte na xëy na tàyyi na sax léegi comme tali bi ni mu fi dawee nii oto mbalit chaque jour dina am buy ñëw guddi gi am buy ñëw bëccëg gi population bi tamit am nañ ci responsabilité bu rëy ndax da ngay dégg oto mbalit di corne au lieu nga dem génne sa mbalit nga dem tuuri doo ko def da ngay bëggul yom bàyyi ba guddee nga dem tuuri ji ko géej bu dul loolu am nañ fi dépôt mbalit fii ci Yarax mi ngi fii oto mbalit yi di ñëw waaye nit ñi tamit population bi tamit lu gën a tilimal géej gi population bi si la ñu jërëjëf waaw Yacine. Mhm. yow lan nga xalaat ci géej bi lu tax doxatul nit ñi ñëwatuñu fii di préférer dem feneen. Euh, ajaratu foofu moom damay sawar trop tontu la parce que boo xoolee auparavant bu njëkk ba yaraax dafa dafa neexoon a ñëw mais maintenant problème de transport loolu rekk cause la loolu moo tax nit ñi aussi tamit duñ mën a di ñëw aussi tamit euh, yaraax mën naa xam ne aussi dafa am euh, pollution de l'air parce que boo xoolee en général oto yeeg euh, odeur euh, géej gi te am na la plupart ñoo xamante ne dañoo ay asthmatique lañ mënuñu à chaque fois odeur kii saxaaru oto yeeg pollution bi nga xam ne moo nekk ci géej gi ak pollution de l'air bi loolu yëpp day day causé que day day day day causé que à que ñoom euh, du ñu mën di ñëw fii tout le temps te boo xoolee bu njëkk ba yaram boo daan taxaw sa sa kaw terrasse da ngay gi fajar maa bi meer yeeg payeeg ni muy xumbee dangay sawar génn parce que dangay xam ne fii kat am na sécurité mais léegi foo nga bàyyi ba 7 heures 8 pour nga mën a génn sa kër te loolu tamit ça pose problème voilà. boo xoolee comme euh, affaire de projet de baie de bi état bi buñ ci mënee jàppale pour mu avancer bu baax dinañu arranger torop te aussi boo xoolee usines yi aussi tamit. mën naa xam ne tamit cause bi tamit ci ñoom la bu baax parce que boo xoolee ñoom dañoo am benn tuyau boo xamante ne day dem directement ci géej gi ay ndoxu jën même jën yoo xam ne bu ñu ko utiliser bu ko fabriqué ba pare pour xanaa dañ mën a def ci seen usines bu ñu paree dañ koy sànni ci géej gi te loolu aussi tamit mën na causer à ce que ni que Yaraax day manqué jën te boobaa nag nit ñi di fi mën a ñëw tout le temps di liggéey si di daan seen doole. même euh, tali tali karo yi nga xam ne moo dugg ci biir dëkk bi yooyu noonu boo xoolee état moo ci teg loxo moo ci jàpp te aussi tamit entroit mënoon na am benn poste de santé boo xamante ni nit du mën a dem ba Yarakipp wala ay mariste pour mën a faju ji te boo xoolee euh, mairie de en Bel-Air suñu seen budget demoon na presque six milliards kon loolu yëpp mënoon nañ cee réaliser lu bari ay projet yu bari voilà. gërëm sama waa GIE di wax ne fii Antoine am na GIE bu fi mag bu nekk bu mag bu fi nekk te GIE boobu ay jigéen rek a ko jiite yor ko te GIE boobu bëgg nañu jàppale ñu ci bu baax a baax képp koo xam ne autorité nga nekk ci dëkk bi bëgg nañ nga jàpp ci GIE ndax ñu ngi fiy dox ay jéego yu am solo ndax Antoine kenn ku nekk xam ne na yaraax dëkk social la te ñu ngi dox ci social. ñu ngi dox ci wàllum setal dëkk bi dox ci loolu lépp bëgg nañ képp koo xam ne daal nekk nga fii nekk yaraax GIE bob nga japp ci bu baax baax ñi ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm waaji bu baax baax naan ni jërë ngeen jëf. di remercier ñëpp di contane torop ci invitation bi di nuyu ñi nga xamanteni ni ñoo ñuy ni euh di wax ni que lepp lo xamanteni wax nañ fi lo xamanteni lu jub ci yeen la lo xamanteni nak lu gatt la wala lu dëng ci ñun la te aussi di leen ci jéggalu bu baax baax di vous wax aussi tamit euh, aussi tamit euh, di lancer sama boutique en ligne Yasmine Shop vente de friperies des parfums de classe et tout sacs, chaussures de marque C'est mon numéro de téléphone 76 550 29 48 ou bien 77 202 29 39 merci beaucoup à la prochaine. Tata Euh, di am contentement si li ñu leen woo ngeen ñëw wi suñu si suñu deuxième émission xew xew xew euh, di espérer tamit que ni maire bi dina dégg euh, appel yu ñu ko lancé yëpp mu taxaw population am aussi parce que tamit tey su nekkee fu mu nekk population bi ñoo ko fa teg aussi di leen yëgal que ni dañoo am benn projet Kër Sëñ Touba fii ci Touba Yaraax mooy def benn construction maison islamique boo xam ne Euh, mag comme ndaw ñëpp dañ fay mën a jàngee alxuraan comme saa nga xam ne dinañ xam seen diine euh, xam li yàlla tere ak li yàlla diglaane léegi ku si am looy barkeelu rek euh, numéro web ak orange money bi c'est 60 c'est le 77 689 36 77 aussi tamit soo demee ci compte Instagramu daayira bi information boo bëgg dinañ leen ko jox compte Instagram bi c'est daayira Mounawirou Soudour en 3 insécurité bi am an peliara an an pelière dagal lool xam ay non non foog mu commencé wat ko sinon man yasin ko tudd wala yaa insécurité d'accord déposer waat la question wala may waat non bien jërëjëf bi. machine mu continué koon ay démarche genre que lan nga ma waxati woon fàtte la. ma xaala fekkaw ma ko. waaw ma koy ba am naa nga woon. liggéey. affaire yooyu noonu génne. dañu bëgg wax ci maanaam transport bi détaillé nañu. waaw su la neexee tamit nga wax si genre par rapport ak ni muy xatee que taxi.